ñoo ngi fii ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Jogomaay nekk ci diggante Cilmaxa ak Pekes jumaa ji ngeen di jàkkaar lool sëriñ Cheikh Bara Lahat moo ko liggéey ba mu àgg di jumaa ju mucc ayib lool def ci lépp loo xam ne moom la war a am jumaa ji nag ñu ngi tegoon xeeru njëkk wi ci atum 2015 ci ndigalul Cheikh Sidil Maxtar Mbàkke yàlla na yàlla yokk ay leeram te taasu ci barkeem mu yebaloon ci sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xaadir mu teewaloon ko ca ginnaaw bi nag sëriñ Cheikh Bara Laat def ci yitte taxaw ci temm jumaa ji jaral ko lu ne mu liggéey ko tey jii ba mu àgg jumaa ji nag liggéey bi noppi na bu yàgg waaye tolluwaay jamono ji ak kilifa yu bëree bëri yoo xam ne bëggoon nañ teewee ci inauguration bi te jamono laaju ko moom tax sëriñ Cheikh Bara bëgg a bàyyi ba ci kanam mu door a jàpp li nga xam ne moo di dat inauguration bi. Njogo May di dëkk boo xam ne dëkkub sëriñ baaral Laxat la sëriñ bi nag bëgg dëkk bi fonkal ko boppam mu gënal ko lu bëree bari ba mboolem fu mën a nekk rek boo ko tuddalee Njogo May xolam sedd. jumaa ji ku ne xam na euh, sëriñ bi cofeel gi mu am ci diine cofeel gi mu am ci lislaam bëgg gi mu bëgg maamam sëriñ Touba waaye bëgg gi mu bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na kon mu tabax fii ci Njogomay jumaa xeer jumaa bi nag Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke joxoon ko ci ndigal Cheikh Basirou Mbacke Abdou Khader dikkoon fi ci ndigalul Serigne Sidi Mokhtar Mbacke 2015 teg fi xeer wi boobaak léegi Serigne bi tàmbali liggéey bi tàmbale ko ci ndigalul Serigne Sidi Mokhtar Mbacke waaye nag jumaa ji mboolem lu fi dem Serigne bi defal ko boppam ndax lu mu am rek diine lislaam moo ko ñor. sëriñ Cheikh Bara Laat am na fi daara ju mag joo xam ne ay gone ñoo fi jàng alxuraanul karim bañ ko taxawee léegi léegi nag li fi jotee mokkal ci alxuraan lim bi takku na lool. noone it lañ fiy sàkkoo xam-xam ne képp koo xam ne mokkale nga ci daara ji mën ngaa wéel sam njàng ci sàkku xam-xam te doo génn dëkk bi nga xam ne moo di jogomaay. bismillahir rahmanir والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتردى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك دالا فعدا وجدك عائلا فأحنا فأما اليتيم فلا تقر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث دار جلي نجاك خام رك موي نيو خام نه سيرين بي داف لله ورسول اك سام نونا نام يا اك ار كو داك كو نه خام بي لوكو فاندي مول موي جانغ اك جانغاله waaye yar taalibe yi te loolee nag mooy loolu mooy sosub daara ji da koo def ngir jëm lillahi wa rasul amu ci kenn koo xam ne ñi fi nekk mii ngi séentu ci sa waajur lenn loo xam ne loo koy warloo la dara waaye da koy def rek ngir jëm lillahi wa rasul ba kenn ku nekk ñoom bu ñu génnee mën a nekk ay kon loolu mooy jubluwaayu daara ji. daara ji daal ñu bàyyi xel sëriñ bi li tax mu sañ ko mooy jaamu yàlla ak liggéey ak sàmm ndono li nga xam ne moo la fi sëriñ bi bàyyi woon ndax day faral di wax ne. daara ji de bu fekkee maanaam njàng mi rek moo mën a dox daara ji bu fekkee maanaam njàng ak yar bi am na lu ci mënta ñàkk na doon yar bi loolu moom dañu koy faral di wax lu bëree bëri ba jotaay bi nga xam ne moom la mujj amee ak moom wax nañu ko kon day mel ne kon daara ji yar bi moo ko ci gën mboolem loo xam ne luy luy luy jikko ju rafet ju ñu nawee nit dañ koy fexee jëmmat ci xale bi. dëkk bi nga xam ne nag moo di Jogomaay Serigne Cheikh Bara Laat am na fi ay tool yu mag lool di tool yoo xam ne at mu jot da koy bay. te lay bàyyeekoo ci mbay moomu da koy delloowaat ci jumaa ji nga xam ne moom la doon liggéey ci dëkk bi ak taxawu ndongo yi nga xam ne ñoo fi saakoo xam-xam. sëriñ bi bu mbayee ba pare lépp da koy jël def ko ci biir jumaa ji ndax moom alxuraan a ko ñor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñor maamam Cheikh Mouhamadou Lamine Baara moo ko ñor ba tax na kon Njogomaay gi nag nekk dëkkub cosaan nekk dëkk boo xam ne si dëkkub diine la waaye lépp nag sëriñ Baara Lahat Mbàkke mi fi woy juróom ba Cheikh Abdoulahat Baara daloon lépp moo ko waral. ndax Cheikh Abdoul Ahad moo ko fi delloon fii ci Njogomaay mu nekk fi nag nekk fi ndigal nekk fi nekkeen wu rafet samp fi daara muy daaray alxuraan di daaray xam-xam di jumaa ji nga xam ne lu toll ci ay téeméeri donga mokkale nañ fi alxuraan ñii bind kaamil ñii mokkale fi ba génn dem jàngi xam-xam mu tabax fi daaray xam-xam nag ku génn ci daara ci daaray alxuraan ji ci daaray xam-xam jooju ngay dem jàng moom loolu rek a ko ñor diine lislaam ji liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara loolu rek a ko ñor.